من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaam wa rahmatulah taala wa barakatuh.
ginnaaw biñ leen nuyoo ziar leen ndokkeel leen ci guddi leer yu nekk te di leen baalu ak di leen ko baal di wéy rek ci niñ ko tàmmee di defee saa yu ñu wooyee benn buntu ñu wol ko di ko tënk ko tënk bu gàtt ngir ñu xam li ñu doon woy li muy neex neex yépp nekk am na wax ju nekk ci biir wax ju di lan la moom la ñuy jéema tënk tënk bu gàtt incha allah démb nag imaam Busayri yi mu ngi doon wax ci juróom benneelu bunt bi ci kéemtaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag mu ngi wax ci isra wal miraaj mooy voyage bi nga xamante ni moom la yonent bi sasam defoon mu voyage nocturne xam ne guddi la woon mu dem riñaani boroomam subhaanahu wa taala woo woon ko doon ko dénk ay mbir ak aussi doon ko jox lu mu ñu indil muy julli lan moo xewoon ci guddi gi ak nu mu demee woon loolu la imaam Busayri yi di nettali ci juróom-ñaareel bunt bi nga xamante moom la ñu jàng tey imaam Busayri yi ne yaa xayra man yamamal aafuuna saahatahu sa ayan wa fawqa mutuunil ay nuqi rusumi yow mi nga xamante ni yaay gën ci ñi nga xamante ni way xaaraankat yi dañuy jox ñëw ci sa ci sa ëtt su ne aafuuna mooy ñi nga xamante dañuy dañuy xaaraan si ñi ngi xaaraan si nag li ci jublu mooy ki nga xamante ni ngay wuti tuyaaba mooy ñi nga xamante dañuy dem ci màkka di ko ziyaare ngir di sàkku ci moom ci tuyaaba ci barkeem saayan di dox wa fawqa wa fawqa mutuunil ay nuqi rusum yi am ñoo xamante ni suñuy dem di ko ziyaare moom sallallahu alayhi wa sallam ak dem ci ëttam ñii dañuy dox ñii dañuy war ay gëléem ñii dañuy jël avion ñii jël ay oto ngir rek dem ci jëmmam jooju ñu tedd ji imam Busayri ne wa man huwa al ayatul kubra li muxtabirin wa man huwa niamatul uzma li muxtanini ki may wax ne mooy ki nga xamante ni moom mooy kéemtaan di gën a mag xam nga suñu wax kéemtaan yi nga xam yàlla def na ko des fois dañuy lim fàtte limaal yoon bi sallallahu alayhi wa sallam te kéemtaan li yàlla bind li muy rëy rëy lépp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci gën a rëy moo tax imam Busayri ne moom mooy kéemtaan di gën a mag ki nga xamante ni yàlla bind na ko loolu nag ñeel ki nga xamante moom mooy xalaat waaye aussi moom mooy xéewal bi gën a mag ci ñi nga xamante nii am nañ xéewal yooyu mooy ñu ñu nga xam mooy xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xéewal bu gën a mag bi ñu am mooy xe mooy am sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yónni ko ci ñoom imam Busayri ne sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama saral badru fi taajin min azulami yow de yàlla rañaane la la woo na la ci guddi nga jugee ci xurum bi guddi jëm ci beneen xurum bi moo jugee ci masjidul xaraam jëm ci masjidul aqsa loolu lu meloon mu ne mu ngi mel ni weer ni muy riñaanee guddi ci guddig lëndëm xam nga guddi gi su demee ba lëndëm ñuul kukk weer wi génn fenk di sowi soo gisee ni muy mel ci ci ci asmaan bi mel ni luy dox di gaaw di dem ak leeraay bi ci biir ak ni muy feeñee ci biir ci ci biir lëndëm gi ak ni nga koy séenee Muhammad sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon ci guddi googu mu ngi leer nañ mel ni weeru Badr weeru Badr mooy weer bu tolloo quatorzième jour xam nga day fees dell nga seen ko fekk asmaan bi lëndëm mu fees dell nga gis ko muy dem ci bi muy reñaar ci guddi gi di xotti asmaan juróom-ñaar yi noonu la meloon wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qaadi qawsay lam tudrak walam turami xam nga isra wal miraaj bi ko yàlla subhanahu wa taala tudd tudd tuddoowu ko maanaam tuddoonu ko ñoom ñaar dafa tudd fee isra tudd fee miraaj moo tax am ñoo xamante ñu wax ni isra wal miraaj amul ci gën a guddi waaye li gën a siiw li gën a li borom xam-xam yi gën nettal daal moo ci benn guddi la ndax suñ doon expliqué suñ doon exemple exemple bu ndaw ci isra wal miraaj isra mu ngi mel ni tey nga ne woon da ngay voyagé par exemple dem Sénégal da nga jël avion isra bi mooy oto bi ngay jël pour egg ci aéroport miraaj bi nag mooy fi nga jëlee avion bi pour mu naaw ak yow yóbbu la fa nga jëm moo tax isra wal miraaj ñaar la waaye même voyage la imam Busayri ne fanaan nga yéeg juróom-ñaari asmaan ba nga am grade boo xamante ni kenn amu ko sa diggante ak sunu borom subhanahu wa taala ni mu jege woo mu ngi mel ne diggante li ñuy wax xala ak xàccuwa loolu am ci olof ñoo ko firee noonu mooy comme ça xala soo ko jëloon tey soo ko xollee diggante xollit bi ak ak ak ak xala bi yet bi ni mu ni mu jege wantoo daa mel si diggante su borom noonu la jege wantoo wala ñi ne déedéet du loolu. xam nga xaaba xawsa yi léebu arab la am ñu ne xaaba xawsa mooy soo jëloon xala mooy li nga xamante moom la ñuy wax fett fett yi nga xam moom la ñuy fitte nii ay kii yooyu damu am damu am kii affaire buy jam soo ko soo ko soo ko dëngalee ba mu dëng diggante ñaar cet yi xam ne ngay takk fii buum takk fii buum ñaar dañu jegewantoo ñaar cet yi dafa mel ni sa diggante sa borom noonu la jegewantoo am ñu ne déedéet xaaba xawsay ni comme xawsay ni musannaa la ñaar la mu ngi mel ni nga jël benn xala xala mooy ya nga tëral fii benn tëral fii benn ñoom ñaar ñu dende ñoom ñaar ni ñu dendantee daf mel ni sunu borom subhanahu wa taala ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam noonu lañ jegewantoo keroog guddi googu dégg nga walam tudrak walam turami yow li nga am keroog ci ci ci ci mandi la ci garaat ci guddi googu noonu day kenn mënu ko am kenn sax mënu sàkku sax am loolu parce que yow kes la ko yàlla jégleel waxad waxad matka jamiul anbiyaai biha wa rusli taqdima maqdumin ala qadami guddi googu day yow yaa jiite malaaka yi wala boog asafal yaa jiit anbiya yi kon yaa jiit anbiya yi nga xamante ne moom nga fekkoo moom nga fekk foofu ci asmaan bu nekk am na yonent bu mu fekkoon wa biha ak rus ak yonent yi xam nga nabi ak rusul li leen wuutale mooy nabi dañ koo jox secret bi mais kenn yónni wu ko rasul nag dañ ko jox secret ba pare ne ko demal mu ngi mel ne ñu ne la ñu fal la ministre jox la grade ministre mais yow amul benn fonction boo xam yaa ko occupé comme li ñuy wax par exemple ministre conseil ba pare nga toog yow daal fal nañ la chaque mois di nga jot salaire waaye ministre nga waaye defoo daal am ko xam ne dañ ko jox dañ ko jox grade ministre ba pare ne ko demal ci terrain bi ñoom ñaar moo leen wutale loolu moo wutale rusul ak nabi ñoom ñaar ñëpp nag ku nekk Muhammad sallam jiite na la ci julli mais yan façon julli parce que bi Muhammad sallam di dem da doon jëli julli jiite na leen julli léegi ban façon julli la ah julli gi nga xamante ni rek moom moo tolloog julli googu moo xam ñaan la moo xam leneen la waaye boobu jiite na leen daal dégg nga ni mu leen jiite nag exemple exemple bu ñu ko jox moom imam Bouchayri yi nee na mu ngi mel ni yow mi nga xam ne yaay patron bi nga am ay employé yooyu liggéeyloo ni nga leen di jiite ñu topp sa ginnaaw moom asalaam noonu la jiite woon yeneen yooyu topp ginnaawam imam Bouchayri ne wa anta taxtariqu sab'a tibaaqa bihim fii mawkibin kunta fihi saahibal alami yaa ngi xotti juróom-ñaar asmaan yi day ànd ak ànd ak ànd ak malaaka yi jibril mi kay asrafil ñu dar la mu nekk zaaru cortège cortège ba nag yaa nekk boroom drapeau bi moom moo yow yaa jiitu xam nga cortège par exemple Latul Isra ahlu kullu samain sajadal kullu id ra'awka wa qamu nahnu في روضة الرسول جلوس Waaw هذه يقظة وبالله ومن ليلة الإسرى أهل كل زمان سجد الكل إذ رأوك وقاموا نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا من ومن ليلة الإسرى أهل كل زمان سجد الكل إذ رأوك وقاموا نحن في روضة رسول جلوس هذه يقظة وإلا منام macha allah kon mu ngi noonu yaa ngi xotti juróom-ñaari asmaan yi ànd ak malaaka yi ñu dar la mu mel ni cortège cortège bi nag yaa nekk borom drapeau bi xam nga cortège présidentiel soo gisee oto yi li ñuy bëri bëri bëri am na oto boo xamante moom la ñuy defal drapeau bu ndaw bi nga xam ne kon kii mooy kii moom moom cortège bi kon moom lañ jiital kon Muhammad sallallahu alayhi wasallam tamit keroog moom suñ ko expliqué ci loolu kon moom moo yore woon drapeau bi cortège bi dafa yëpp dañ ko doon gunge dongo imam Bushayri ne hatta ida lam tada sha'awan li mustabiqin min ad-dunuy wala manqan li mustaniq li mustaniqi yaa ngi dem ba nga egg foo xamante nii ci kowe ak ak ak ci jege yàlla bay woo benn lef lef mooy foo xamante ne amul kenn ku mën a rawante ak yow daal ci dunu wi ci jege bi nga jege yàlla waaye bay woo benn yéegu waaye tamit li mustanik li mustanimin ñeel aji ñolong mooy ki xam ne dafa yéeg nit lu muy kawe kawe daal yow keroog sa martaba moo gën a koy foofu ci jege bi nga jege yàlla mooy am nga lu kenn amul daal imam Bushayri ne xafatta kulla maqamin bil idaafati is nuudita bi rafi misla al mufradil alami yow ne xafat nga xam nga li moom ñoom gaa yi naxwu yi ñoo ko ñoo ko moom ñoom gaa yi waa fak arab dégg nga yow daal xaf jar nga bépp maqaama boo xamante nañ ko idaaf xam nga idaaf soo soo ne mudaaf mudaaf ilayhi dañ koy kasar dañ koy jar yow nag képp ku nekk sa wet rek yow kii nga ko laaf nga ko ñoom xam nañ ko ñoom borom grammaire bi waaye tamit is nuudida bi raf bi raf min mufradil alam yi mufradul alam soo koy soo koy woo mu ko ne yaa zaydu mufradul alam xam nga dañ koy rafa keroog tamit yow ni nga koowee mu ngi mel ni ni ñuy rafaayee mufradul alam soo koy woo xam nga ne yaa zaydu yaa nangam loolu nag gars yi ñoo ko moom mu ne kayma tafuuda bi wasli ay mustatirin anil uyuuni wa firrin ay muktatami yaa ngi yéeg egg ci yàlla am ay martaba ngir nga kowe bi waslin ci egg bi nga egg ci sunu boroom ay dégg nga bi wasli ay mustatirin nga jëlee fa loo xamante ni dañ koo nëbb bu mu ci nëbb maanaam bi Muhammad sasam demee li ñu ko fa jox moom kese moo ko xam xanaa li ñuy jot wax as tuut waaye xaaj bi waxuñu ko ndax am na lu ko yàlla dénk am na lu ko yàlla déy iqalu xayra haslin xaara al mawla faqat fa xayra diinin a ilahi ya ilahi ya ilahi a ilahi tawbatan qabla manwa walay wa fi l isra'i qalu xayra haslin aara al mawla faqat faqayra diini
dégg nga kon gi nga kowe ba egg nga làq ci ngëneel ak ci egg ci loo xamante ni ko suturaal ci bët yi maanaam bët musul gis lu mel noonu te yaa wax nañ la ko pare déy na fi loo xamante nii ba léegi siiwul comme si daxamaa waxee ci xilaas déy nañ ko fi loo xamante ni ba léegi sennul de wa sirrin ay yi muktatamin ak secret yoo xam ne dañ koo nëbb nëbb nëbb nëbb ba as tuut lu muy jot a wax daal des fois mu ñëw nettali ñu dara waaye liñ ko fa wax liñ ko fa déy xaaj bi xaajat waxuñu ko mu ne fa xusta kulla faqaarin gayre mustarakin wa xusta kulla maqaamin gayre musdahamin yow de làq nga làq nga foofu ci riñaan googu bum ci puukare boo xamante amul kenn koo ko bokkal puukare bi nga fa jëlee de yow kese yaa ko am keneen mosu ko am waaye tamit làq nga fa ay maqaama yoo xamante ni amul kenn koo koy buuxanteel mooy amul kenn koo ko bokkanteel imam Buseyri ne wa jalla mixdaaru ma wuliita min rutabin wa adda idraaku ma wuliita min niamin yow day kem bi nga fa am ak daraja bi nga am foofu noonu day màgg na lool ci daraja yi ñu dafa jox waaye tamit wa adda jafe na lool idraaku ma wuliita min niami li nga fa li la fa yàlla jox ay xéewal day jafe na jafe na wala sax c'est impossible keneen di ko am yow kes yaa am loolu imam Buseyri ne bushra lana ma'ashara al islami inna lana min al aya min al inaayati ruknan gayra munhadimi mbégte day ñeel nañu ñun waa kuréelu islam ñun waa islam day am nañu mbégte am nañu honneur inna lana ñeel nañu min inaayati ci coon ci ni ñu sonne ruknan ci ponk gayra munhadim boo xam ne du mos a màbb maanaam ñun waa islam daal yàlla may nañu benn ponk boo xamante ni du mos a màbb ponk mooy li nga xamante moom mooy téye comme fekkoon tey tabax la dañ naan ay poto la. pot am nañu poto boo xamante ni mos a màbb kon ñun nañ jàpp fu dëgër muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam lamma da allahu daaina li taatihi bi akrami rusli kunna akramal umami bi yàlla woowee muhammad mu daaina ki ñu woo li taati mooy muhammad bi yàlla woowee muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa akrama rusli te maam tàgge ko ci yaa gën ci yonent yi loolu booba day ñun ñii ñun xeetam ci lañu nekk xeet yi gën ci xeet yi mooy bi mu yàlla xoolee Muhammad sallam ne ko yow yaa gën ci yonent yi ba pare mu yónni ko ci ñun suñu xeet ñun kon ñun xeet yi ci la ñuy gën mboolem xeet bu suñu xeet kon ñun lépp lu ñu gënee xeet rek ñu ngi ko gënee ci barke Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ci tënk loolu mooy buntu bi ñu ngi jéggal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh